asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñi fi toog ñëpp di leen sant di leen gërëm di leen wax ne seen teewaay fii kontaan nañ ci trop. donc mouvement Teranga askan wi dafa naa gars yi def nañ jeunesse bi mooy fu mu jóge mouvement politique la mouvement de développement la boo waxee développement mooy jàppale. parce que am na loo xam ne mënoon na fi am ñu yemale ko suñu biir mais wax dëgg yàlla mouvement bi lépp li nga xam ne ñëw na ci ay loxoom. tas na ko ci ay cellules am muy ci côté emploi muy ci côté financement muy ci côté formation muy ci côté bép donc yaakaar na ne mouvement bi lépp li nga xamné ne pacte mën naa xam pacte moral la signé ak ay membres am ak ay responsables de cellule. parce que buñu ñu neexoon ñu wax comme comme politiciens yi ñu koy defee rek. di wax lo xamné ne jaarul yoon pour lan utiliser leen. waye ñun mouvement Teranga askan wi ruus nañu taxaw di leen diriger fo xamné ne di leen yóbbu fo xamné ne intérêt néw fa parce que seen intérêt mooy suñu intérêt te yaakaar na ne kat am nañ ay ambition yo xam ci si dëkk bi ñun teg nañ fa suñu tank te muñ ñu fa yegg tank yéen jappalé leen donc mouvement Teranga askan wi en gros lolu moy sa vision première moy jappalé les couches sociales jappalé suñu yaay jappalé suñu frère jappalé suñu sœur yi diko ko ànd ak nag koo xam ne suñu leader politique di suñu directeur di suñu kilifa di suñu lepp muy pap Siré ma leen di ñaan ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax parce que damay wax rek comme Samba Ndiaye lu mu ko waxee Babacar Diallo nu ñu ko waxee produit bu neex a jaay la. parce que damay wax c'est pas un politicien mais c'est un homme politique entre homme politique et politicien il y a une grande différence te yaakaar naa ne ay actam de par ses actes de par ses fonctions de par ses réalités ak li muy def yëpp yaakaar naa ne homme politique la te waa Thiès yëpp. ak waa Sénégal yëpp yaakaar naa ne xam nañ teg nañ seen bët parce que ku ko xamul tamit dégg nga ay jëfam moom li muy wax souvent mooy du ma nit koo xam ne day nekk si média bi wala day nekk si dëkk bi di wax waaye man samay jëf man ñoom ñoo may waxal te ay jëfal ñu ngi koy waxal. yaakaar naa ne koñ boo dugg si Thiès jamono ji am na koo xam ne mi ngi liggéey pos te Pape Siré Dia moo ko dugal mu xam ko wala mu ñàkk ko xam donc loolu dañ ko si remercier di ko ci sant di ko ci gërëm. bo gisee ñu woote fii dañoo bëgg a procéder au financement financement yoo xam ne mouvement bi kat dañ leen moom si Dia jàppale ne leen si lu bëri pour ay cellules am gis ci seen bopp. financement bi Saliou dina si ñëw c'est une première phase parce que mën naa wax ne cellule mouvement bi bëri nañ mais boo gisee ñu procéder nii booy xool ne somme bi fi nekk ak moyens yi nga xam ne mouvement bi am na ko mënul permettre d'un seul coup ñu financer mouvement yëpp.

kenn mënu ko mësu ko gañe si département bi ci Dia man buñ ma fi téggé tête de liste man inshallah allah def avec mes moyens dina ko fi jëlé té yaakaar na ne def nako président contane na ci mom contane na ci mom ñëpp ñi nga xamné ne ñi ngi fi tamit yaakaar na ne contane nañ ci ci mom di ñëwaat tuuti rek si mom parce que ñi ngi jëm ci ay échéance présidentielle te Thiès bari na ay responsable politique bëri na ñoo xam ne ñi ngi jàppale président de la république mais yaakaar naa ne poids politique bi nga xam ne DG Siré Dia mi ngi ko fi yor yaakaar naa ne kenn amu ko fi giingatuñu benn leader APR mais dañuy wax ngir yàlla tax ñoom seen bopp bu ñu wéetee seen biir nekk xam nañ ne Siré Dia lu mu mën biir Thiès beneen leader politique mënu ko fi donc loolu donc loolu dañuy lancer un appel di ko lancer président de la république di ko wax ne Thiès dañoo bëgg loxoom mu teg ko ci Siré parce que bu ko si tegee xam naa ne présidentielle yi ñu jëm dina si am ndam parce que kat benn vision lañ am ak benn objectif mooy lan élire le président de la république au premier tour ànd si ak Siré Dia te loolu yaakaar naa ne yemul kese si département de Thiès même au niveau régional au niveau départemental si Dia mi ngi koy def di si ànd ak ay responsable am comme Babacar Diallo ñuy dugg ci département bi du ko liggéeyal donc dañuy lancer un appel au président de la république di ko wax ne na jël loxoy Thiès mu jox ci Siré Dia au soir au soir des élections présidentielles ndam li dinañ ko jël ñu teg ko ci loxo Siré Dia mu teg ko ci loxo président de la république di leen waxaat ne léegi ouverture pour l'inscription aux listes électorales commencé maa ngi dégg ñu naan ci fin fin fin février bii la war a commencé di leen wax yéen ñëpp ngeen taxaw ngeen ñëw voté ngeen dem inscrire ngeen dem inscrire si liste électorale parce que nit boo koy jàppale na nga yor loo ko jàppalee mooy les cartes ñu dem ñu inscrire ñun ñëpp jour élection yi bu jotee ñu dem voté ji jël président de la république joxaat ko un deuxième mandat pour ñun ñëpp ñu gis suñu bopp. parce que dañuy gis moom mi ngi jëf mi ngi jëf pour Thiès mais am na blocage boo xam ne parfois day am parce que mairie bii yéen ñëpp xam ngeen ne ay opposants ñoo ko yor. la dernière fois pour ñu voter budget bi rek c'est tout un problème bo ci budget bi kenn voté wu ko te buñ ko voté wul day handicapé ties handicapé wul politicien yi mais ñun ñi di doomu Thiès ñooñu lay handicapé te lool lan moko waral à chaque fois ties dañoo wara yew yeewu dañoo war a parce que mënu ñu tamit di top ay nit yo xamné duñu jëmalé kanam Siré Dia mi ngi liggéey liggéey liggéeyu maire te wax dëgg yàlla élection locale yi di ñëw war nañoo mën a jël Siré Dia ñu jox ko maire de Thiès. comme ça suñu coono aduna yépp suñu coono yi nga xamné ci Ceesuwaay yi ñu ngi koy rencontré yépp ci réja taxawuñu ci di leen di sante di leen gëreum ma rappeler rek né financement yi biñ koy commencé daw lañ ko commencé parce que dañu won ben projet bu ñëw woon fii doon ko liggéey ak ben ONG ñëw ni ko fi daf fi ndaje bu reuy am ay ño xamantane ay mutuel lañuy ñuy gérer ñëw. ñëwoon ci ndaje mi bi ñu ñëwee gis organisation bi rafet ci mouvement bi ñu ne ñoom pare nañ pour jàppale mouvement bi bu seen ay jigéen bëggee financement donc ci la ñu ñëw benn jur ñu jàpp ak ñoom réunion woo responsable cellule yëpp toog ak ñoom ci restaurant poste fa la ñu dafay jour boobu réunion bi kiy gérer mutuelle bi moom mooy ñëw directrice bi ñëw toog expliquer leen nan lay financer ne moom pare na pour financer jigéen ñi nga xamante ne bëgg nañu liggéey que mu nekk cellule bi nan la ñuy def ba ñu am ci financement yi que mu nekk aussi nit koo xamante ne bëgg na ñu financer ko donc ñun loolu aussi nekkoon bi nga xamante ne waroon nañ ko def. parce que mooy li ñu wax sànq rek duñu toog élection ba élection jot rek ñu ñëw fëgg nit ñi ne non Siré Dia wala Macky Sall ñun dañuy bëgg chaque jour politique bi développement bi di nekk au quotidien chaque jour bu ñu yeewoo ñu ciy dox. ñoo ngi wut ay partenaires ñoo ngi ciy waxtaan ñoo ngi def yu bëri yoo xamante ne jógewul ci DG mais ñun ñoo koy xalaat gis opportunité ñëw tegal leen ko. formation yi tamit la même chose groupement yi nga xam ne dañu bëgg ay këyit nekk e wala bëgg. xeetu papier yu nekk dañ leen ciy jàppale dañ leen di gunge wan leen nan lañ koy wutee ba pare wan leen ne yoon bi gën a yomb dem nañ fii ci benn groupement keroog je pense que kon ñoom Malick la yaayam ñu expliqué ne moom pour mu am ay këyit sax fay na ci xaalis bu takku te lañ ko ci laaj sax lam ci waroon dab pour am ko matul dara donc yooyu aussi dafa baax ñu xam ko am nañu ay groupement yoo xam ne dem nañ fa ñu ne ñoom am nañu alal am nañu ay 10 millions 6 mais xamuñu luñ ciy def. donc il est temps ñoom ñu ñëw wax ñu né projet bi lañu bëgg a def ñu former leen ci projet bobu wan leen yoon bi comme ça ñom ñu mën di ci am leneen lo xamante du nekk ay natt wala leneen. day nekk lo xam sax day dem ba nekk entreprise seen ay doom ñëw di ci liggéey wala seen ay jël seut wala ñeneen donc loolu moom mooy solo si. Euh, financement yi bu ñu ko joxee mouvement bu nekk cellule bu nekk waxuñu responsable cellule bi de dañuy tànn koo xamante en général jigen lay doon parce que yeen yag ngeen di dafay nat wala ay tontine xam ngeen nan ngeen di gérer financement ñu tek ko ci loxom bu ñu jëlé xaaliss bi tek ko ci loxom mom mu tan juroomi nit ci cellule bi financer ko bu ñu leen financer ñoñu chaque semaine ñu ñew rembourser som bu ñu leen joxoon bu dé par exemple dañ leen jox ñent junni chaque semaine ñu ñew duggal junni ak luñ ci tek liñ ci tek par exemple bu ñoo joxee junni nga teg ci téeméer téeméer boobu day dem ci keesu cellule bi mouvement bi amu ci dara bu ko fayee ba weer bi dee ñu jëlaat alal jooju joxaat yeneen juróom dañ koy expérimenter ci ñett ba ñeent mën na dem sax ba juróomi weer chaque weer ñun mouvement bi dinañu ñëw ci ki ñu joxoon alal jooju ci cellule bi ne ko kan kan nga financé nan la fayee bu dee moo ngi fay normal alhamdulilah bu dee fayul normal aussi am na ay téq-téq ñu xool suñu biir nu muy rafetee ba mu remboursé xaalis boobu mais li am solo moom mooy tey jii boo leen financé bu ñu leen joxee junni boobu par exemple la ngeen ciy tek mën a duggaat seen kees ngeen am ko bu ñu demee ba juróom weer yi mat ngeen ñëw ñeen ñu xaalis bi ñu leen joxoon kat moo ngi nii ñu ne ah cellule bi kat liggéey na liggéey bu rafet ci alal ji nañ ko yokkal nañ ci dolli xaalis donc ñu dollil ko xaalis mu gën a liggéey donc mbir mi noonu lay demee financement bi ci lu je pense que c'est yu bëri ñu demoon seet yi expliqué nañ financement yi aussi ku ñu jox financement ci cellule bi am na fiche bu ñu koy jox boo xam da numéro téléphone am daf ci lépp li nga aussi moom mën nañu identifier ne ci cellule bi la bokk daf numéro carte mouvement bi miñ ko jaay fiche bi dina am ñeenti euh, case yoo dina man kat ci xaalis bi ñu ma lebaloon dugal naa temps ci intérêt bi intérêt boobu yéen yéen a ko moom cellules yi mouvement bi moomu ko mouvement bi du banque dañu bëgg bu boobaa yéen bu ñu demee ba financement bi juróomi weer yi mat ñenn ñun kat am nañ ci cent mille francs wala am nañ ci cinquante mille francs comme intérêt donc xaalis boobu aussi ñu joxaat leen ko ñeen jël ko financé waat ko seen yeneen membre ñu dolli ci xaalis parce que phase test bi loolu moom mooy jëriñ bi donc financement bi loolu noonu noonu lay demee je pense que xawna leer ci bop ñu bari bu dé amna ño xamantane xawna ne ci ñom mën nañu poser question ñu répondre leen légui wala buñu démé aussi sen cellule sen responsable yi gën leen expliquer donc euh, ñom bu boobaa dinañ xam na la duggé ci financement yi donc lool mom moy financement bi non lañ koy doxalé bala ñuy dem cellule bu nekk taxaw fi aussi dinañ la jox sa enveloppe de financement mënuñu jox ñëpp pour l'instant parce que dafa xaw a mais dinañ def léegi à titre symbolique wo benn cellule jox ko financement ñeneen ñi ci des ñu dem ci biir après ku nekk ñu jox la sa financement nga dem yóbbaale sa kër léegi nii balaa ñu fiy jóge incha allah. seetal suma xol guddi ak bëccëg dipi bu ñu amagul dara sax liggéeyuñu defuñu dara biram sax buñ ko foree ñëw na ma maam ame ñooñu xam nga ne yàlla du leen toroxal ñooñu xam nga ne yàlla du leen toroxal teral ngeen ma sigil ngeen ma lu nekk defal ngeen ma ko xam ngeen ne du ngeen torox mukk ci kanam ci kanam rek ngeen di gas ñuy suul rek ngeen di wax waaye ñuy suul seen bopp la ñuy suul rek ñuy suul seen bopp rek la ñuy suul dara lañ la dul mënal première ci la ñuy fal Macky Sall waaw waaw ci baax bu sedd sallallahu ñaan naa ko ci yàlla yàlla dina ko def du ngeen sax mukk ci àddina seral ngeen sama xol seen xol di tàng du am mukk ci àddina loolu du am lu am su ma ween wi kenn ku nekk namp na ko ba mu bënn soo moomu ba tey mu ngi leen topp ndax soo mu di ngeen koo toppatoo mm. lu ne ngeen di ko def lu ne defal ngeen ma ko mm. yow alaaji yorowa yaag saraka yi xam ngeen ne ngeen torox mukk ci àddina yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla fay yal na yàlla fay siggi ci siggi rek siggi rek ca kanam rek ca kanam rek ca kanam rek waaw Siré Dia Siré Dia bi muy nekk xale bu tuuti laa ko xamoon ba léegi keroog bi mu ñëwee suma di ma nuyu damaa ree ma ne ko ah Siré mu ne ma ne ma ah yaa yaa mel ni mu ne ma waa mu daal di ree mu ne ma maam ni de ma ne ko maa ngi fi rek ay waa ji Siré yal na leen mu ne ma amiin ña ma ñaanal koo ñaanale ñaanale ñaanal keroog amul luma ma Siré ja defaloon sama xol seddu guy guy guy guy guy guy dugal loxoom ci poosam rek moo daal di ko kii rek ne ma maam am jëndee ko groupe wallaahi wallaahi taala man sama bàmmeel laa tiim ji nga sama bàmmeel moom laa tiim lépp lu ma wax rek dëggal sama bàmmeel laa tiim xaw ma yeewu xaw ma danaa yendu xaw ma dëgg billaay alaaji yoro seen xol dina sedd billaay alaaji yoro seral ngeen sama xol seen xol dina sedd ci dara joo yonent waaye tey ma am contentement ci ñëw bi nga xam ni moom laa ñëw fii ci mouvement teranga askan bi organisé tey ndax mouvement teranga askan bi li tax ma am cawarte pour ñëw fii mooy ñoom dañuy dox ci social la ñuy dox ak ci développement te bañ ciy dox du tey yàgg na ba tey li ci seppeeku seppeeku ci waaye li ci yokkit gën ca yokk muy mouvement boo xam ni kenn du ko présenté kenn kon tey bu ñu wootee fii ci Grand Thiès woote nañu foo xam ni fii lañuy ñu war a woote te fii moo jar a woote muy fii ci Thiès Ouest ndax ñoom kenn rek moom moo leen ñor kenn moo leen soxal muy la DG Siré Dia moom moo leen soxal te DG Siré Dia man ku ko soxal soxal na ma ku ko ñor ñor na ma te it xam naa ni yéen it ñu ñor Siré Dia ngeen ndax ki nga xam ni ci social la dëkk ci développement la dëkk xoolul lenn loo xam ni nit mi ngi koy def ci lu ñaaw mu ci ko ci toppandoo au contraire da ko ci dindi te tey ci loolu lay dox tey li mu def Thiès ci commune de Thiès ak li mu def ci département bi yaakaar naa ni kenn dootu ko wax kon tey bu fekkee ni mouvement Tera nga askan bi ñëw na di woote ci woote boo xam ne woote social la woote développement la kon yaakaar naa ni bu ñu leen fi fekkee mbooloo mu toll nii war nañ leen a sant war nañ leen a gërëm war nañ leen a jaajëfal ndax li nga xam ni ñoom moom la ñu jibte du dara ak lu tax ñu di ko def du dara mooy lan dañuy jël seen lépp wékk ko ci askan bi pour teral askan bi pour xool askan bi nan lañu mën a développé woo pour ñu ànd ak ñoom guddi ak bëccëg ndax boobaak léegi tooguñu taxawuñu te nag lu tax ñu taxaw ndax ki ka jar rek moko sira jar to koku moy DG Pape Siré man mi di wax ci la bok ndax tay ma ngi ni Siré moma jël dugal ma pos te boolewu ko man kese amna ci sama yenen morom amna ci sama rax amna ci ñeneen ño xamni tay ji ñi ngi fi te Siré mo moo leen ci dugal xolu sax Siré xolu sax ki ko xam ak ko xamul mom li ko ñor rek len rek la moy président de la république monsieur Macky Sall moko ñor te président bi ko ñor moy lan moy ñu fexé ñu ko élire élection 2019 en premier tour. kon lool mom motax tay ji xamna ni sen woote social ak sen woote njëkkeew ñu ñuko tay ndax lu tax njëkkeew ñu ko tey mooy que ni do xaar ba élection jëpp ngay wo nit ñi ndax tay ji ñu bari ñi nga xaar élection jot ñu di len wo di len nek nekkal di len nax. ak di leen yóbbu di leen indi waaye ñoom defuñu ko ñoom ñi ngi ci parcours bi kon parcours boobu ñu nekk moo waral tey sama ñëw fii ma ànd sama xarit sama frère muy Baye Fall ñëw tey pour colorer bis bi pour ànd ko ak ñoom loolu moo doon kàddu yoo xam ni maa ngi koy jël di wax ma di leen sant di leen gërëm di santaan mouvement teranga askan bi. ba may ñëw ci ndigalam laa ñëwee moom DG mu ma boo demee waxal ma yoroba ni maa ngi koy félicité waxal ma Yoro Ba ni maa ngi koy encouragé waxal ma Yoro Ba ni man Siré Dia kontaan naa ci moom am na yar am na teggin gëm na li muy def mu ngi liggéey liggéey bu am solo maa ngi koy félicité moom ak équipe mu àndal yëpp sans exception boo demee neel Yoro taxawaayam ci li ñu weesu maa ngi ko ci félicité. mom ak ñi andon ak man di ma jàppale ndax dañoo joggé ci élection législative ñu def campagne wër ci kaay gep pour ñu dem fa ba yalla may ñu ndam mu ne boo demee ne leen moom yoroo ak jabotam ne sama xol sedd na ma ngi len di sant len kërëm ndax gis na jàppale bi waye waxal mako ni ko ñu ngi jëm ci ay échéance li ci suñu kanam maam ci mom yaakar am yaakar ci ñi mu andal am yaakar ci jabot gi mu andal ma len di ñaan ñom ñep ku ci ne na nga redoubler d'effort gën a yokk gën a massifier gën a élargir gën a xootal ba li ñu jëm yàlla defal ko ci ndam ah nee na ma waxal ma leen ni vraiment lépp loo xam ne ñu ngi ciy nekk maa ngi koy dégg maa ngi koy yëg sama xol sedd na loolu la ma yabaloon ne ma naa ko wax yoro ci seen kanam bi ci des sama waxi bopp la Thiès coow li bëri na bañ demee élection législative yi passé dañu wax ni kan la ñu war a jël samp ko mu takk brassard de capitaine jiite Thiès ñëpp laaj ku ne ne man ku nekk naan manam président ci boppam moo xoolal boppam tànnal boppam ne man kenn rek moo ma doy biir Thiès ndax bëgg naa teg Thiès koo xam ne ñëpp jox nañ ko cër bëgg naa teg Thiès koo xam ne am na yërmande bëgg naa teg Thiès koo xam ne fu mu dugg ñëpp d'accord kenn rek a ma ci doy muy le directeur général Siré Dia muy DG de la Poste ba mu ko def ko tête de liste ci élection yi passé ñu Nous, ak mom nak de l'est à l'ouest du nord au sud matin et soir sans compter des missions secrètes yo xam doxal nañ ko ko yalla defal ko ci ndam ba tay ji mu ko neexoon tak drapeau parlementaire taxaw assemblée nationale mu ne déedéet man li ma ñoroon mooy président Macky Sall na am ndam man Siré Dia benn responsable laa am ñu ne kuy sa responsable mu ne président Macky Sall man kenn laay waxal kenn sama interlocuteur kenn sama chef man je suis mackiste bu weesoo Macky xaw affaire keneen. kon bu ma amee ndam ñu dox élection législative ba ñu am ndam li ma intéressé woon rek mooy ne président Macky Sall am ndam te am nañ ko nag Thiès ki fi nekkoon ñu naan mooma gis nañ ni nekkatu fi. kenn rek a fi ne moom la ñëpp di waxtaan moom la xale yi tudd moom la imaam yi tudd moom la élèves yi tudd moom la étudiants yi tudd moom la jigéen yi tudd moom la mag ñiy tudd moom la ku nekk di tudd ndax mooy régler soxla askan wi dama ne teraanga askan wi mooy Siré Dia du yaa ne teraanga askan wi yoro teraanga askan wi égal Siré Dia ndax moom askan wi rek ka ko ñor askan wi rek ka ko ñor fa laa doon dem askan wi ko ñor ndax jox na ñëpp ñu liggéey tey jii fii mooyul am na fi ñoo xam ne ña ngay xëy te ci njaboot gi la ñu bokk ak ñeneen ak ñeneen dama ne nañu góorlu bi ci des barki de moo njaay maa ngi liir ci kii dégg benn waay buy wax naan woy président Macky Sall il faut que ñu dem wax ko ni Thiès amul ko fi représenté kooka di wax loolu wax na lu ko neex moom xam na président Macky Sall kan moo ko fi toogal xam na président Macky Sall kan moo ko fi joxal xale yi ñu liggéey kooku guddeeg bëccëg subaa ngoon mu ngi woon kër déchet di ko seet di ko topp di ko tarbiwu di ko ñaan di ko saraxu lu ne mu koy wax kon moom tey bu toogee ba naan président Macky Sall faa ñu wax ko fi nekkal moom daa mel ni daa dëkk ci dëkk bi naaj bi siree naaj la ku yeewu gis ko ku bañ a gis sire bul dund ndax boo dundee gis ko naaj la bu ne bàng kon moom bu ne xamul président Macky Sall ko fi nekkal wax na lu ko neex wax na lu ko neex wax na lu ko neex. donc mouvement bi comme ni ko Saliou waxee rek ki fi ñëw tey ak ki fi ñëw. yàgg ñoo yem ñun li ñu xam mooy liggéey ki ñu indil ay projet indil ñu xam-xam ñu mën a ànd ak yow liggéey ñun loolu lañ xam donc képp koo xam ne ni tey jii tàllal nañ nga ñu loxo ñëw ne dama bëgg a liggéey ak mouvement bi ñu tegal la suñu ay euh, principe ne la lii la ñuy liggéeyee nga ànd ci ñun pare nañ pour liggéey ak yow parce que dañuy politique mais tamit dañu def politique de développement parce que loolu moo ñu tax a jóg politique bi nag comme ni ma leen ko waxee rek dañu am suñu leader te suñu leader mooy li ma leen wax mooy Pape Siré te gis ngeen fim ñu taxawu taxawu fa mouvement bi taxawu fa waa Thiès donc loolu moo ñu gën a ñor moo tax ñun ñu gën a taxaw sawar ànd ak moom ci mouvement bi di ci liggéey te fi ñu jëm ñëpp xam nañ ko dañuy politique comme niñ ko waxee donc dañ jëm ci ay échéances yuy war a ñëw muy 2019 donc lépp lu nga xam ne mouvement bi mën na ko taxaw di ko ko jàppale daf ko koy jàppale lépp tamit li nga xam ne mouvement bi mën na ko taxaw pour jàppale ko askan wi comme niñ su mouvement tudd teranga askan wi dañ koy jàpp donc ñun pour rappeler leen rek ne ñun loolu mooy ay base yoo xam ne nii mouvement bi noonu lay tëddee noonu lay doxee donc ñu ngi leen di gërëm. di leen xamal ne leen yéen lu ngeen woote dañuy ñëw parce que li mu waral dañuy ñëw mooy ma dama doon politique di politique ak Siré pas parce que Siré lima benn li ma ne nit soo ko bëggul doo ko jàppale. soo ko santirul doo ko jàppale te Siré Dia c'est la fois man ma politique te Siré Dia moo ko waral ma ñëw rek di politique nekk passé responsable di politique di jàppale Siré Dia te musuñu woon gisee musuñu woon toog depuis ba Siré Dia di politique ba tey xëy na amaana comprendre mu lay politique jaar samay tànk di gor comprendre ma ba ma découragé na damay bàyyi taxaw buntu poste ndax man poste laa nekk taxaw buntu poste di ko kaas man a Jóob moo ne ma kaay ma boole laak waa askan teraanga yaro ma jox ak yor téléphone ñu jotante ñu ñëw ñu expliqué ko dama expliqué ko ne ko damay arrêté ñu encouragé ma trop ne ma bul arrêté demal ma ne ko rek yéen damay ñëw bokk ci yéen ñu defal seeni kart jox ñu. ba tey dara ñu continuer parce que carte yi ñun jaay nañ ko ba tey joxuñu benn carte na yoro ambulance daal dégg nga ñu continuer ci affaire bi continuer ci affaire boobu yoro ñëw sampal ma seetlu seetlu bi mu njëkk a sampal seen man ñuy responsable man la njëkk ñëw ak ñi ma boot sampal ñu ko te depuis lim ñu wax ba tey ñoo yoro ñu ngi dem ci affaire boobu lu xew dañ may expliquer financement yi zaal wax lépp expliquer demoon nañ mais xëy na peut-être ni ñu waxee explique comprendre ñu am na ñoo xam ne intéressé wu na xëy na xëy na gisuñu seen bopp ñu toog mais ba tey lu am dañ ñu koy wax yoroo lu mu mënti dégg daf may woo téléphone expliqué ma wax man lépp lépp si rajo rek muy ku neex a jàpp la vraiment man su ma ñëwee taxaw ci micro yi wax sax grace à ñoom la parce que jour bi ma ma defee tee baa fi woo ma damay expliqué jour boobu dama doon lox di wax di patiner di reetaan ndax xaw ma lu may wax te c'est la première fois ba tey ñoom. tay ma ñëmé taxaw di wax ndax ñoma ma poussé vraiment ndax ku la jàppale rek nga nan ko jaajëf jaajëf tranga askan bi ñe bis sira jare ku neexa jappalé la ndax lu mu dégg ak nit ñi da koy def ba ci élection fu mu fu mënti dem def fa campagne bu ngeen waxé ku nekk sa cellule defé na lu nekk lam la digoon def nako ndax rek soy jappal da ngay jappal ko ragal yalla jappal ko xamne lu mu wax da koy def jappal ko xamne tamit lum ne la fi la rek fofu la yéen eh, teraanga askan bi yeen jikko sira Dia rek ngeen jël parce que ba ngeen dem ak ñun ba tay lu ngeen wax ne di leen ko def ci cellule rek yeen akoy def ah man de wax deug yalla waxu len luma yegul yëgul defu leen lu ngeen ñu defal lu ngeen mënti japp rek parcelle da ci da ngeen da ci xam bar te vraiment rek sira Dia moom dama koy remercier di ko remercier di ko remercier remercier bu amul app dañ nan est ce ay mbokam ñoko wax te Siré ñun mën nañu taxaw wax mbaaxaayam parce que Siré ba muy baax du tey waaw ba mu nekkee cadre poste la commencé di baax Siré duggul ci état di soog am oto Siré duggul ci ota état di soog a am kër kër Siré dafa amoon këram am otoom am teraangam macha allah avant muy dugg ci état lii mu dugg nii sax Siré mënu ko mënu ko Macky moo ko ci dugal rek woo ko ne ko kaay jàppale ma demal Thiès jàppale ma mu ñëw Thiès wax ko ay mbokkam waaw keroog bii El Hadj a ñëwee ne ma maire ma ne ko ah, mu ne ma dañuy wàcc ci terrain politique bi de ma ne ko show moom man waxuma ci dara xanaa jour élection ma jël sama carte dem xool ki may voteel voteel ko mu ne ma dinañ wàcc parce que DG Siré Dia la euh, Macky jox Thiès pour mu wàcc fi am si basam ma ne ko ah bon mu ne ma ne ko loolu moom neex na Siré moom neex na dimbali parce que koo xam ne da daan dimbali nit ñi ba dara dul dara di lamb salaire u boppam di ko poste di fay mu ciy jël di ci dimbali famille am di ci dimbali askanam di ci dimbali ñoo xam ne sax duñu ay mbokkam kooku boo ko jàppalee ba mu yéeg incha allahu rabbi moom dina jàppale nit ñi te effectivement li ma waxoon moo am Siré ba mu yéegee amul mbokk amul xarit amul dara waaw ñëpp la bokk yemale ñëpp la bokk yemale ñëpp lay defal du defal ay mbokkam rek bàyyi ay jàmbur déedéet ñëpp la bokk defal kon nag tey jii ñun Siré dañu kontaan ci moom di ko ñaanal yàlla yàlla yokk ko ba mu yëg ko le président Macky aussi a jox ko victoire au premier tour waaw ñu toog fii ba di ko feete Nous ñu fait koy gërëm di sant. ñoo sant ñoo ngi ndax euh, bëgg man politique mais depuis ma dégg turam avant que gis intéressé yàlla a tax ma fait ku bëgg Siré Macky. ay jigen lañu ay xalé ñoo ci nek liggéey rek luñu bëgg nak xalé yi liggéey mag ñi ñu financé lañu japp pour jappalé xalé yi lool rek mo ci nek nak kon ñoo ngi ñaan yalla na jëm kanam am réussite buñ ci bëgg yalla nañ ko yàlla jox ñu ñoom ñi ngi seen ginaaw ñi ci seen ginaaw tay ñi ci seen ginaaw ëlëk waaw mais buñ ci jógee nak affaire financement bobu tam ngeen jappalé jigen ñi parce que jigen ñi tamit sonu nañu sonu nañu dinañ leen jappalé waaye yeen ngeen jappalé ñu wax dëgg yàlla jigéen ñi moom sonn nañu moom loolu rek lañ leen di ñaan. financement bi ni ñu ko déroulé première phase la phase la dafa nekk tamit ñuy liggéeyan tamit comme mouvement bu somm day liggéey ak ñi may liggéey ak ñoom noonu la waa jàmm gën di liggéey ak ñoom noonu la waa Parcelles liggéey ak ñoom noonu la waa somm tamit biir kaw somm di liggéey ak ñoom à travers Malick donc bari na xam ne ci mouvement la bokk te ay. ci ci mouvement MT MTA lan bokk te nekk ay groupement yoo xam ne bari nañ donc phase test la tamit bu nu ko joxee tamit ñu xam ni leneen lii ñëw mooy dàq ndax le DG xam na sunu liggéey xam na mouvement yi nekk sunu ginnaaw donc dinañu soutenir bu baax a baax ñu xam ne ñu jàpp tey jii nga xam ne lii nii c'est un phase test ñu jëm cee liggéey ak yéen ba suba incha allah dinañ xam ni carrément. mouvement MTA liggéey moo ko tax a jóg jàppale askan bee ko tax a jóg jàppale Thiès moo ko tax a jóg. su ma xëyee jigéen ñi rek laay dajeel su ma xëyee jigéen ñi rek laay dajeel jigéen ñee am jom te incha allahu rabbi li ma ne xëcc bu daggul dikk xëcc bu daggul dikk ndax Siré Dia ku jare jàppale la man musuma politique musuma politique bëgguma ko woon mais ñii développement la ñuy def. xale yi fuñ ma yóbbu ma dem fa. ma bëgg mooy waa koñ bi génn waa koñ bi di ñëw ndax lii suñu intérêt la Siré Dia ñëpp la fi nekkal Siré Dia ñëpp la fi nekkal yal nañu yàlla jàppale ñun ci li ñuy wut yëpp yàlla may ñu ko ñu fekkee ñun jigéen ñi nag yàlla nañ ci gën a gis suñu bopp. parce que ñoo gën a sonn ñëpp ñun ñooy daw dépense yi dépense yi matul ñun ñooy daw di jaay di jënd di joxe yàlla nañu gën a yàlla jàppale. man nag ma nekk som représenté som sama xel dal lool nag ci yéen sama xel dal ci siréja ndax dëkk bi foo romb siréja la wax lu baax la wax ci siréja kon sira dal nam xare waaye ñun jigéen ñi dafa am lu ñu wees muy fo caaxaan duggi oto di rex rexi dem ak dañ ko wees man day tàllal naa leen loxo te duma ko bank ndax ku dëkk ay ni na faal li waa ji wax léegi ca taawu ca taawu ca taawu maanatulaay jéen nga dëkk ay nina faal xam nga lan mooy politique di ànd ak Ndey Njaay saasu na man façon politique bu ne politique naa ko politique def naa ci lu nekk def naa ci lu nekk ci àddina dama ni dama ko bàyyi waaye sama doom ji di Malick moo tax man tàllal naa leen loxo fu ngeen ma woo ma wuy leen ñun jigéen ñi nag li ma leen di wax mooy ñu góor góorgóorlu ñu takku ñu jàppante am fulla am fayda ba fa ñu bëgg a yóbbu Siré Dia ñu yóbbu ko fa man loolu laa leen di ñaan ñu jàppaloo nekk benn bokk ndey bokk baay ba am victoire boo xam ne Sénégal yëpp dinañ ko wax wasalaam. ñun na leen fi tax a ñëw pour jàppale suñu càmmiñ rek moo ñu fi tax a ñëw dëgg la nag ci Siré Dia xëy na dafa takku ba pare tekkil mbooloo Cees waye ñun jigéen ñi nak dese nañoo gis suñu bop ci Siré dañ ñoo bëgg ñu jappalé ñu ndax ñun liggéey rek lañu xam man bi may dugg si dé xamanté ñom élage waxna ko néna ko top na leader di jël sama xaas di ci def du yobbu sama sa sa sunu koñ té gisunu dara yeen nag boo gisee ma jappalé li ngeen né di ñu duy jigéen ñi ci kaar yi di leen yobbu ñuy taccio ko fecc dañ leen di wan yoon wo xamné dañuy liggéey di jëriñ seen bop di jëriñ parti bi di jëriñ askan wi looloo tax ñu jàpp jàppale leen léegi nag ñun li nga xam ne mooy ñun li ñu jëlal importance mooy ku ñu may doole ñun jigéen ñi loolu la ñu soxla ndax fi mu toll nii Siré Dia mënuñoo dugal poste mënuñoo dugal fenn ndax bu ñu liggéey xanaa deux ans la ñuy liggéey jot retraite xanaa neex mais kon nag bu ñu bu ñu joxee benn baaraam rek puus ñu rek dinañu jàll te bu soobee yàlla di ngeen xam ne ñu mën a liggéey ngeen jàppale ndax jigéen ñi liggéey rek la ñu xam. ku weddi nga 6 heures du matin rek na nga génn taxaw ci biti doo tasee góor jigéen rek ngay taseel daan doole rek la ñu xam loolu nag moo ñu fi moo ñu fi tax a ñëw te ñoo bëgg ngeen jàppale ñu wasalaam.